jërë ngeen jëf mbokku internetu Actubuzz TV jërë jëf ñamati mbégte contentement bu baax a baax ñamati mbégte bu baax tey jàkkaarloo ki matinam mooy Babacar ñu fas yéene sekk ak waxtaan yu am solo waxtaan wi nag dina nekk waxtaan waxam ne waxtaan am njëriñ parce que bale passé ci émission bi nga xamante ne defoon nañ ko fii ñu waxtaan ci mbir li nga xamante mooy ci clandestin bi nga xamante ne xale yaa dem ci géej gi depuis boobu ak léegi di si ñàkk seen i mais jamono ji mooy que li nga xamante ne mooy matériel yu jàmbur yi nga xamante ne xale yi dañ koy obligé léegi borom gaale bi ñu xaw a sàggane ko tuuti rek ñu sàcc seen i matériel jël seen i moteur ak seen i essence yóbbee ko ci nar ko demee ci li nga xamante ne mooy ci tukki boobu mais maa ngi toog ñi nga xamante ne tamit seen i matériel dañ ko see jël ay ñoo xamante ne tamit euh, démb rek am nañ sax ay quelques échos yoo xamante ne ci côté Yaraax fii ne am na ay gaal yoo xamante ne dañu fa départ dem ci li nga xamante ne mooy ci euh, Espagne mais Babacar ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Abdou ñu ngi lay nuyu ak waa Actubuzz TV yëpp di leen ziar di leen baalu àq bu baax a baax comme ni nga ko expliqué rek jaaroon nga fi ñu defoon benn waxtaan ci demee noonu ba yàlla dogal tamit loolu di gën a euh, di gën a doy waar parce que liñ ci boole léegi ëpp na sàcc bi biñ ci boole agression biñ ci boole di jël ay matériel jàmbur di ko yóbbu te ñi koy def dañ lay jege xam la mel ni ànd àndatuñoo seen sago ci ñuy def yooyu yu jar a taxaw la ñu ngi lay nuyu nag di la ziar bu baax a baax di nuyu euh, ñi nga àndal ci émission yi am solo yi ngay def di nuyu sama mag yi toog Moussa parce que moom tamit ci ñuy si matériel yi dem matériel am bokk na ci ak sama rak ñu nemmeeku dip boobu ak léegi parce que ñu ngi doon wax sax ne li nga xamante ne mooy coowal clandestin peut-être xëy na wàññeeku mais fi mu ne nii ñu ngi ciy déggaat xale yi ñu ngi yaat ci ci mbir mi te ñu ko defee dafa dafa doy waar jamono jii dañu ñëw fekk alalu jàmbur te ñu jël yóbbu ak gaalu jàmbur waaw loolu waxoon nañ ko si suñu émission bële passé di ñaan suñu autorité yi rek ñu gën ci taxaw ñu gën ci taxaw parce que jamono yële passé jëloon nañ fi monsieur moteuru bënam wàdd ba tey feeñagul moteur euh, moom mu ngi dëkk bari ñi di mool bu mag liggéey rek la xam yooyu yoonam newu ci loolu raam na bi ak si suñu kër ñu jël si suñu euh, ñetti moteur bërki dem moom lañ jël ñetti 60 lañ fi jël ak lu mat ay bu bidon 70 euh, litres bu dooy weex yi. Mm. moom lañ jël si sunu gaal yi. te génnul su loolu ñu jël matériel bu mu jël yëpp génnul suñu compagnie bi. te ñi ko def tamit ñu di ñu dëkk ak ñun jege ñu xam ñu xam ni compagnie bi ñoom ñoo fi yor essance bu baax bu doy. Mm-hmm. bu mën a dem géej xam ni ñoom ñoo fi yor tamit euh, ay machine yu bees mm-hmm. yu mën a risque dem. Mm-hmm. yow nga ñëw nekk seen biir bàyyi essence dafa manqué wu nga nekk seen biir bàyyi ba ñu sol essance nga ñëw profité si guddi gi Euh, raafal gaal yëpp menacé ñenn ñi sax génne leen ay paaka menacé leen jël see booy yi doon fanaan gaal menacé leen jël matériel bi dem te ñi ko def tamit xam nañ leen teg nañ lépp ci loxo yoon nag wax nañ ko autorité yi boobu jug nañ marin bi doon na jug di leen seet mais gaal yi mu jot a jàpp ñoom bokkuñu si bokkuguñ si mais actuellement ni ñu lay wax ni ñun amuñu lu ñuy bàyyi incha allah dinañ ko topp ba mu jeex parce que lii ëpp na waaw ëpp na léegi nag ñu profité rek di ko wax suñu mbokk pêcheurs yi ci Sénégal yëpp ñi nga xam liggéey leen tax a jóg am na loo xam ne ñoom buñ ko nangu tefes yëpp mën nañ taxaw jàppale gendarmerie ak police gaal gu fay tëmb ñu dénoncé ko ku ñu gis ngay engagé ñu dénoncé la parce que foofu la ñu toll lii kenn xamatul lan la sabotage la ay booy yoo xam ne nanguwuñu liggéey nekk ci dëkk bi di encaissé ay xaalis jàmbur te yaakaaroo dara lu matériel lu jàmbur pour sàcc ka dem ba yaakaar du mujj fenn yàlla xam nañ dañ leen di topp xanaa ñu dee de ñu dugal leen ci biir suuf moo ñu jaaxal kuñ ci gis nag ci ñi nga xam ni ñoom dona sa nañ leen wax ni ñoom si lañ bokk ñu jéem a daw di wër-wërloo ñoom kuñ ci gis ñun gendarmerie balaa ñu koy woo ñun ñooy ñëw jàppala dog la jébbal yoon incha allah nag la yoon def liggéeyam mais ñun tamit dinañ def suñu taxawaay bu mat sëkk parce que ñoom ñu nekku ci dëgg bu ñu amee fu la def leen neex ñu nekk ci dëgg xaw ma dañu war a def nii daal moom mooy mbir noonu la mbir mi demee mmh. jërëjëf xam nga ñëw ci li nga xamante ne mooy Moussa ma laaj ko li nga xamante ne mooy euh, mbir mi ni ni mel ak euh, kañ ngeen centre li nga te ne mooy matériel yi euh, booy yóbbu nañ ko. waaw salaamaaleykum waa. Mm-hmm. maa ngi leen nuyu di leen ziar leen jox seen wàccuwaay. loolu mm-hmm. ma abd ak nga àndal. Mm-hmm. leen ziar bu wér a wér nuy nuyu sama frère kon Ngom. di jël néew di ko teg si loxoom ni mu jàlle ko waa jeune pêcheur jàlle ko ñëpp. ñi nga xamante ni tey jii waxtaan bi xam naa ni moom. waxuma la yaraax kese waaye Sénégal yëpp la intéressé. Mhm. parce que nekk na mbir moo xamante ni kon ni ma ko laajee ban heure lañ ko sentir. Mhm. ñun daal jékki wuñu lu dul barki démb yaakaar naa si euh, ban jour télé sa lundi si fajar la xaw ma mardi si fajar. Mhm. la ñu jóg pour xëy dem géej. bu ñu wàccee tefes la booy bi ñëw ne ma est ce que ñun dañ dem géej tey ma ko ah lu xew. mais essence amul si gaal gi. ma ne ko bi bidon yi nekkoon si gaal gi. na booy yi fanaan woon si gaal ñi nga xamante ni tey jii ñoo tëgg affaire clandestin yi muy. Euh, ñu ñuy ciblé ñooñu. que ni ñoo ànd <clears throat> jël seeni matériel yëpp ak booy fanaanoon si gaalu sadee yi ñaari gaalu sadee yi jël ay essence am ak ñaari moteur am ak sama benn moteur boo calculer daal essence bi nekk na bi bidon ak ñetti moteur 60 yu bees booy jël matériel yëpp yóbbu ko géej si fajar googu daal lañ taxaw sentir ni ñun nii jël nañ seeni bagage yóbbu ko te xam ñu ñu ko yóbbu mais liñ si jot a xam daal mooy ñi nga xamante ne ñoo fanaan Sénégal yi moom xam nañ leen mm-hmm. ñooñu moom seeni mool yi bopp lañu mm-hmm. ñoom ñoo ñu def mbir moom ànd koog ay saay-saay yi nga xamante ne ñoo ne si biir dëkk bi mm-hmm. di def façon liggéey bi mel noonu si heure boobu na mm, bi dafa métti lool ni ñoo gën a jege tefes yi waaw nekk na mbir moo xamante ni jafe-jafe yi dafa metti lool si gox yi nga xamante ni mooy mbirum tefes gi mais mooy comme li nga ba li ko Babacar waxee rek su fekkente ne état jóg na pour def liggéeyam. Mhm. am naa yaakaar ni ne clandestin bu leen neexee suba suba suba mu jeex. ñun ñàkk ñu fayda. si li ñuy liggéey dañ ay nit ñoo xam dañoo yar nag dañoo am kilifa. Mhm. daan toog si dëkk bi di def lu baax di wax lu baax. Mhm. di am lu ñuy représenté si biir dëkk bi comme ni ko suñu papa mele woon. si tànk yooyu la ñu taxawee. mais bu ñu gisee ni ñii kat. dañ naan bu ñu leen xoolee dañ naan ay wàllu yàlla lañu loo def dañ lay baal. mais baal am fu muy yem. kon ni ko Babacar waxee nii defal def nañ ko la nga xamante ne moo raw sa li ñu def nii tey jii ku ñu jël sa carte euh, conte di jël sa compte xaalis bi dul jeex di ko tiire di ko tiire di ko tiire ba xaalis ba jeex ñii doo ko feeñ muy doomu dëkk bi ñu jàkkaar la ñoom baal leen yàlla tax looloo gën a métti li mais baal daa fu mu yem dafa am jëfin yoo xam dafa ñaaw clandestin si tefesu yaraax ñu dem ba nga xamante ni jëgatuñu jëlatuñu seen alal di defar ay gaaw wala ay matériel pour yóbbu ay nit mais léegi dañuy agressé ay nit comme menace bi Babacar wax sama doom si la bokk ka nga xamante ne xale la boo xamante ne bi am 17 ans da koy doog am wala 18 te muuma la mais dañ ko ëpp doole moo tax ñu yóbbu matériel boobu tey ji si gaal gi moom moo fay doom mais si des ñëpp ay jàmbur yàlla lañu ñooñu nag ñoo ànd ak saay saay yi nga xam ne ñoom lañu ciblé que ne ñoo yóbbu gaal yi clandestin jël seeni bagage ànd ak ñoom dem dem euh, fële ñuy wax Espagne waaye nag comme matuwaay si yëpp def nañ ko def nañ seeni déclaration def nañu li war def yëpp comme ni ko Babacar waxee bu jaree ñu topp leen ba Espagne dinañ ko def pour fexe leen li leen yoon tegee loxo def liggéeyam waaw. mooy li nga xamante ne mooy tout tout li xew fii parce que ñun démb sa dégg na que ne ci côté boobu am ay jàppante amoon ci côté tefes gi ba ñu ne am na ku ci ñàkk bakkanam xamuñu nag ne am na wala amut parce que dañoo jox information boobu rek ma ne su ma egsee daa gën a laaj loolu ndax ma gën non information boobu na manqué doo ko dégg jàpp ne si tefes Yaraax mhm. ba nit ñàkk si bakkanam mhm. non bu dee am na man dégguma ko wax dëgg yàlla ndax man fii laa euh, dëkk fii laay fanaan fii laay yeewoo fii laay defee lépp mhm. waaye information boobu moom bu fekkee am euh, ko wax dëgg yàlla jàppante boobu moom wóoruma mais am na ñoo xamante ne marine bi tegoon na leen loxo jàppale bon si dégg-dégg nag euh, marine bi dégg naa am na gaal yi mu jàpp mais gaal yooyu mu jàpp nag ñun Euh, démb maa ngi waxtaan ak sama frère Babacar ni ko comme président Pire Mboup de ñu ngi koy euh, nuyu au passage di ko jox waaye moom Pire Mboup bon maa ngi ko doon wax Babacar pour mu woo ko téléphone ñu waxtaan moom ñu xool comme euh, commandant bi nekk fële port bu fekkee dafa jàpp ay gaal ñi nga xam ñoo defoon ay déclaration dañoo jël seen alal nañ leen oo ñu xool ndax si gaal yooyu ñu doon def déclaration ñoom lañ jàpp di ñoom bu dee ñoom la ñu xamal leen ni kat ñii lañ doon wër bu dul ñoom ñu xamal leen nekkul ñii mais bu ñu jàppee ay gaal te woow ñu ñu defoon déclaration ñooñ ñu jàllee wala ñu bàyyi leen yow doo mën a xam ndax ñoom jàpp nañu gaal wala jàppuñu ko si loolu lañ toogee nii fi ñu tool nii waaw jërëjëf Moussa kàddu gi am na solo Babacar comme li Moussa expliqué léegi léegi rek ci côté gaal yi nga xamante ne ni am na yëg gën a jàpp nañ leen waaw di remercier de parce que il faut ñoo xam ne dañ leen remercier mm-hmm. parce que affaire bi ñu ko yëgee ci suba gi ci tàng-tàng bi woo nañ autorités yi nga xam ne ñoo ñu gën a jege ki ñu si gën a jege na muy président ànd suqal napp gi. di Père Mbuub di rafetaay di rafetlu taxawaayam. ci tàng tàng bi ñu ko ko waxee yaakaar naa ne ba fi may waxee yow nii nelaw yu doy amu ko. moo ngi ci guddi moo ngi ci bëccëg képp ku mu yaakaar ne bu la bu la woowee di ci taxaw def na ko ba pare boole ko jóg kon kooku te du te te du lii rek la ko def. actuellement sa euh, fu ñu fu moo leen mën a toll ak seen i jafe-jafe rek moom nga fay njëkk moo fay jiitu. kon dèjà ku mel noonu bu ñuy wax war nañ ko moom la ñu war a njëkk a tudd sax beneen bi tamit suñu maire guddi muy guddi muy bëccëg heure bu ñu amee ay jafe-jafe wax ko ko rek moom tamit dina jóg parce que ñun ay liggéeykat lañ bëgguñu def dara lu ñàkk fayda moo tax ñeme nañ woo ku nekk euh, commandant brigade de an tamit wax dëgg yàlla tamit euh, ubbi na buntam yëpp taxaw boobu tamit moom amul jàmm ba mu pare tamit def na li mu war a def taxaw na ñoom ñoo ngi ci liggéey bi comme que ñoom ñoo ngi ci liggéey bi te ñoom ñoo féet ak wàllu yoon ñun dinañ leen bàyyi seen liggéey ñu ngi ko war a liggéey waaye ñun tamit dinañ gën a continuer seen action fu fu ñuy yoon mën a may ba Espagne gaa gi te normalement bu doon teer Espagne daf ñu fa war a fekk wala autorité yi dogale ko téye ko parce que agression boobu dafa ëpp jël ay alalu jàmbur dem yóbbu ko foo mën a teer dañ la war a yow indiwaat la ci dëkk bi kon nag lii nag autorité yi dégg te jàpp ci fu mu toll nii actuellement lekk ki ma doon waxal léegi si Joal Joal muy puy mbaaw gaalu rakkam jël jël nañ fa set bidon bi si guddi ah léegi dëkk yëpp kenn amatul jàmm ku seet sa gaal sax dem tëdd di nelaw mën nañ sàcc sa gaal yóbbu ko ku seet sa matériel ak lu mu mënti toll mën nañ ko sàcc dem yóbbu ko mais xamatuñ fu ñu jëm kon kenn mënuñu jàppale ku dul autorité ñoo ñu mën a jàppale wàcc si tefes yi surveiller géej gi xool ñi nga xam ne ñooy def lu mel nii kuñ ci jàpp teg la ci yoon. teg la ci yoon saisir sa saisir sa à pare teg la ci yoon. parce que lii dafa ëpp. lii moom ëpp na moom cas bi fu mu àgg si nii ëpp na. ñi ko daan def dañ daan jël li ñu leen fay wala seeni i boobu dem def dem defari gaal. wala ñu jënd ko jël seen i matériel. lu léegi nag yow fekkee dem nga ba loolu yëpp dafa tuloo ko lan nga yaakaar di sàccee alalu jàmbur pour di ko di ko def léegi kenn kenn ne la lii léegi la xew mais géej da nga daan bàyyi sa moteur sa machine sa lépp ci gaal gi boo ñëwee fekk fa mosoo xalaat ni nit dina ñëw di sàcc sa machine kenn xalaatu ko léegi nag bu ñu demee ba àgg ci fii kon ñëpp war nañ ci taxaw pêcheurs yi tamit képp koo xamante ni dara nga ci pêcheurs yi war nga taxaw ci lu mel nii parce que lii xam nga ba nga mujj fii waxoon naa la kenn mucc ci ba nga mujj fii waxoon naa la lii kenn mucc ci te moo ngi ni accès na si suñu kaw kon na si ñëpp taxaw baax na mais yan responsabilité actuellement ngeen ni jël ci li nga xamante ne mooy ci motuwaay pour ba lu mel nii mu arrêté ci seen côté yéen yi nga xamante ne seen i alal ñoo fa nekk ak seen i matériel waaw ñun ñoo ngi waxtaan euh, wàllu sécurité moom ñoo ngi ciy waxtaan bi fépp suñu matériel fu muy dajalooti parce que ñun actuellement lu ñuy nekk fii yaraax la ñu ëpp lu ñuy nekk wala Joal ñaari tefes yi ñu ëpp lu ñuy nekk mais tefes yi nga xam ne fa la ñu ëpp lu ñuy nekk bu ñuy gàmm bàyyi fa suñuy bu ñuy màggal yi bàyyi fa suñuy matériel mm. tabaski bu jotee ñu bàyyi fa suñuy dinañ ñun ñoo ngi waxtaan suñu biir fexe am surveillance ñoo xam ne ñun dañu ñu leen di jël spécial ñu surveiller suñuy matériel mm-hmm. parce que àgg nañ foofu waaw. li Babacar léegi léegi rek pour jël spécial ñi nga xamante ne tey mooy ñuy surveiller seen i matériel parce que actuellement boo xoolee mbir mi ëpp na doole te valeur yi ñu sàcc xaas bari lañ lañ yóbbu parce que moteur lu mu bon bon bon bon war a mën a egg ci millions mm-hmm. waaw loolu côté boobu mu waxee foofu euh, dama si sawar a wax bu baax a baax a baax parce que waxtaan nañ si moom. ma ne ko affaire boobu bu ñu ci taxawee wax ko war nañ see mën a taxaw jàpp si ndax euh, mbooloo la. Mm-hmm. du doon loo xamante ni te diis na oyof. parce que mbooloo mooy doole. tey fu mel ni Yaraax Tefes. Mm-hmm. boo dee seet mën nga foog ñu lu mat neuf filaatu na yoo xam ni waa Ngomeen la. Mm-hmm. boo demee Joal bële bële ya fa nekk ñoom Puy Mbaaw ñoom Njawre bu ñu booloo war nañu ëpp dix gaal. bu ñu fekk see waa Ngomeen fay teew nag kon day ëpp ay quinze wala vingt gaal. kon ñooñu tey jii lu ñu jàpp rek sumb ko rek war na mën a taxaw. muy benn action ba nga xamante ñu ngi siy waxtaan te bëgg nañu ñu taxaw si nu mu gën a gaawee euh, bu jëree wut ay kër yu légal yoo xamante dañ koy wut sa wutaale ko ba nga xam ne ku ñuy jàpp ëllëg yoon bu la téyee si seeni si seeni si seeni euh, condition rek la mën a bàyyee si seeni condition rek la lay mën a bàyyee parce que dafa metti nit ña nga xamante ni liggéey rek la ñu xam muy askanu ngomeen ak waa kër Baye Birane Diop yooyu nga xam ne tey ñoom puy mbaaw yëpp si tënku liggéey la ñu xam xamuñu affaire caaxaan kon ñooñu nga xam ne tey liggéey la ñu xam xamuñu affaire caaxaan war nañu mën a sécurité seeni i matériel ba nga xamante ne ëllëg kenn du leen foowee parce que li xew si jamono buñ ko seetaanee agression bi amoon ci kaw tali bi moo bëgg a dugg si biir géej gi te bu duggee si biir mool nag bakkan xaj na si te ñaan ñu ko yàlla kon état tamit loolu ñu demee bi ko taxawal war nañu jël si ni kayit am fuñ ko yóbbu fa nga xamante ni day wér ba nga xamante ni ñooñ dinañu mën a bàyyi xel dinañu mën a bàyyi xel ba nga xamante ni doole jooju dañ koy am. Mm-hmm. si loolu daal la ñu taxawee ni te bëgg nañ si taxawee si mu gën a gaawee. Mm-hmm. allah mm-hmm. mais di booba léegi li nga xamante ne mooy fii ñëpp xam nañu monsieur le maire Babacar Mbène nekk fii. ndax euh, ba mu yëgee mbir mi mu ngi jug jàppale li nga xamante ne mooy si côté sécurité bi loolu nag moom si loolu seen ñoom ñi nga xamante ni tey si côté sécurité si côté tamit am na solo Babacar Mbène nekk na ka nga xamante ni maa ngi koy nuyu au passage moom itam euh, waaju jàmbaare la ku sawar sa napp gi la ku sawar si doomu yaraax la tey lii ngay def nii tey ji boo ko si woowoon am na cawarte goo xamante ni fii la koy fekk te dina si wax ay kàddu yu am solo kon am naa yaakaar tey buñ ko ooyee toog ba waxtaan seeg moom dina si taxaw te dinañu dooleel tamit te sawar naa jël alam def ko si loolu moo xamee nañ ko ko moo tax nekk na mbir moo xam ne daal bu ñu si taxawee si ñu la des wax dëgg yàlla jërëjëf Babacar comme li mu wax léegi-léegi rek ci li nga xamante ne mooy ci monsieur le maire bi nee naa ko loolu compétence wu ki nga xamante ne mooy Babacar Mbengue la parce que tamit dëkk bi dëkkam la gox bi tamit moom la fi yàlla teg muy mel ni bi am di dal ci ay doomu dëkkam war na ci jël ay responsabilité pour mu arrêté waaw euh, côté laal nga côté bu baax sax jàmbaar la waaye dañ gën a yokk suñu taxawaay muy moom muy ñun muy autorité yi nga xam ne ñoo ŋànk Dakar surtout Yaraax woote nañ fi ay réunion ay yoon yoon ci wàllu sécurité pes fii nii ci quai de pêche bi kii Moussa Ami doomam fan yi jàpp na jën woo xamante ni bi mu ko teeree tefes yaraax ñun nekkuñu fi ñun ñëpp nekkuñu fi woon teeral lu fi masul am booy dañ leen song dina agressé ba gaañ ci ay booy sànni leen ay xeer gaañ ci ay nit jàpp seen jën di ko tuur topp jigéen ñi ba ci tëli ba di nangu seen i jën def nañ benn raafal nag mais doyul xam nga lii bi mu amee bi mu amee mbuur waa mbuur dañoo jóg waxtaan seen biir avant muy faju bakkan tëdd na fa balaa loolu di am nag ngir yàlla autorité yi nañu jóg ci li ñu war a jóg ñoom la yàlla dénk dëkk bi ñu yor wàllu sécurité lii waxuñu ko tey rek ñoo ngi koy wax ay yoonu yoonu yoonu yoonu yoon léegi bu ñu demee ba population bi jóg di fajal seen bopp day ëpp te ñoo ngi àgg nañ fa nag parce que booy tey jii tey tey booy nee ma wooteel yàlla xam na loolu wooteel ñëpp ñu génn ñu lijjantil comme ni ko mbuur defoon ñu lijjantil ko noonu suñu bopp tey jii rek wax nañ ma lu mel noonu kon occasion la ci laaj bi nga laaj mhm. moom tamit mi nga xam ni moom monsieur le maire ñoo ngi waxtaan ak moom jege nañ ko mhm. moom la yàlla dénk dëkk bi na ci gën a taxaw mook préfet mhm. ak ñi ngànk sécurité bi fii ñu taxaw ci sécurité yaraax parce que lii mësul am yaraax jigéen ñi nga xam ne ñooy jaay ñooy ñoo yor seen njaay di ko jaay sax seen i kees bi ñu ko tegee foofu ñu dajji ko booy yi léegi doo comprendre lan la tefes gi tux yàmba agressé yooyu moom moo fi am mais loolu lu war a dañ la lu war a dañ la nañu wax ni dëgg rek lu ni lu ni fàng kenn du ko jeex amul ñoom ñëpp kuy dox ci tefes gi di diloo diloo gis lu mel noonu kon nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ci war a jàpp daal ñu ñoo ngi leen di ñaan ñu taxaw ci lu mel ne dëkk bi dellu si lu mu nekkoon waaw comme li nga wax ne léegi léegi loolu mu nekk loo xam ne daaw ñu ko gis fii mais bu bay am ci lan ma waral lan la conséquence bi lan la géej gi moo dox napp moo doxatul wala moo ba xale léegi dematuñu géej gi def yenn yi bi napp bi dese dox nu mu doon doxee waaye amuñu jom mm. lu mu ñàkk la dox teewul ñun ñii ñëpp gëm nañu yàlla nekk ci ak sunu njaboot xalaatuñu def yu mel noonu dorog baaxul ci dëkk dorog bi ñuy bàyyi muy dugg ci dëkk bi xale yi di ko def ba ba tuur seen ñàq def yi ñàkk fay fayda moom moo leen ko gënal loolu man manu ma ko manu ma ko ci génne manu ma ko ci génne dëkk bi naan naqay dëkk bi lu mu naqa naqa ñi ñaa ngi góorgóorlu loolu du loolu du du wax du du ni man géej gi moo neexul damay def lu ma neex déedéet géej gi lu mu naqar naqar nit ñaa ngi fay dugg di jot di jot seen wërsëg di yor seen bopp kon ñoom bu fekkee géej seen métier nañ dem liggéey ku géej nekku sa métier nga dem topp ko waaye mandaar du métier affaire mandaar du métier taxaw ci dëkk di def li la neex loolu du métier kon lii ñàkk jom kese nga ko mën a tuddee du leneen waaw. est que nekkul tamit comme li nga xamante ne mooy solidaire bi ne seen biir ak mbokk yi su ma defee dañ may baal loolu parce que da ciy bari. waaw loolu junj na Moussa Moussa mi junj na ko. Hmm. toll nay jamono ba mas nañ ma def lu mel noonu compte bancaire boo xam ni euh, dindi euh, code secret bi sax code secret bi sax. Hmm. Euh, xoolaguma ko man. teg te sama kër aw ma jotam. dem Joal booy sàcc caméra bi jël carte bi di ko retiré di ko retiré di ko maak sama benn rak di retiré carte bi ba xaalis bi jeex tàkk. Hmm. te bi leen jàppee commandant bi téye leen. ñoom ñi ko doon def yëpp yàlla suturaal nañu bañ jàppaleen mais yàlla xam na ni ñun comme suñu papa nu mu mel ci dëkk bi ah moom dafa nu mu fi nekk woon ñu bëri xam nañ ko bu ñu demee ba ci biir xam ni ñun ñii ñi ñuy ñaan nii ñii ñu leen bañ a jéggal wala seen parents yi taxaw naan ñu bàyyi xool leen ni ñu koy mën a fayee parce que dem ku ku dem di yóbbu añ di të nan ngay faye léegi yàlla tamit xamuñu ni ñuy def ñu jéggal leen léegi nag lu mel noonu bu fekkee si loolu nit sukkandiku bay def lu ko neex nit ki nit dina am foo xam ne bu sësee fa lay mën a lii nag suñu teraanga la mhm. ni si booy jubloo nii nekkul lu ñuy nangu nekkul lu ñuy nangu de te lii dinañ ko topp nag te ñoo ngi ñaan daal autorité yi ñoom ñu taxaw ci lu mel nii ñi xam ne dañ dugg si dëkk bi fii di nekk si dëkk bi fii di sabote liggéey taxul leen jóg li ñuy def nañ ko yemale seen bopp te bàyyi nit ñi mhm. buñ ci mënul buñ ko mënul yemale seen bopp euh, yoon def liggéeyam comme ni mu ko war a defee parce que def li la neex di daw boobu léegi at yëpp ñoo ngi koy def dañuy def ay njubadi di daw yaakaar ne après day sedd ñu bàyyi noonu mu jeex lii de xanaa ñoom ñu dugg ci biir suuf tax ñu bàyyi ko waaye ko bàyyi bu soobee yàlla jërëjëf. jërëjëf li nga xamante ne mooy gaal gi amaguñ ci benn nouvelle ba léegi gaal benn nouvelle ba léegi. loolu daal mooy comme li nga wax léegi bi am na gaal yi mu téye ñu ngi port mais xam ndax ba ñoom si lañ bokk wala bokkuñu si waaw si loolu daal lañ toll fi ñu nii waaw mm-hmm. ah. li ngay dénkaat li nga xamante ne mooy jeunes yi yi nga xamante ne dañu wuti dem jël li nga xam mooy euh, ne ñooy jóg di dem ci affaire mbëkk bi mm-hmm. depuis mu xew 2006 ba léegi mm-hmm. man sama kàddu benn la ma sa doon ndax mool la yàgg naa si tang bu nekk fekk na ma si géej gi si suñu zone bi te tang yi am si yeneen zone yooyu ñoo gën a garaaw tang yi fuuf bi ma ko nattee sama bopp man dama ne man alalu àdduna jaralu ma. Mhm. may yëg si gaal naan maa ngi dem Espagne man bi ma ko nattee sama bopp. nit ñi nag wax la ñu mën. Mhm. am na ñoo xam ne boo waxee ñu ngi lee dégg am na ñoo xam ne boo waxee déglu wuñ la. Mhm. ñoom li ñu gis mooy dem rek jàpp nañ ni foofu rek nga mën a amee fi nga dëkk juddoo fi yoroo fi mënoo fi amee. te àddina demeewul noonu. fi nga nekk sa mën nga fi amee sa wërsëg. te doo dugg avion doo doo dem sa aéroport. waaye nag képp koo xamante ni yaa ngi jóg pour dem ñett yi rek laay faral di wax. dem àgg baa dem dee si yoon bi baa waññeeku moo nekk si yoonu Espagne bi ku mu jaral nag yoon baa ngi noonu ñun daal wax lañu ñu mën toog leen xaar yàlla fii góor góorgóorlu liggéey di nga mën a jot sa wërsëg ku tukki di nga mën sa tukki ji tukki buñ jàpp ne neex na bu njëkk xëy na neexoon na waaye léegi neexatul kon jaratul léegi nit di si def yenn euh, sacrifice yi bay rey sa bopp si àll bi ci lu leen mën a dénk waaye daal li si loolu si mënta wax luñ si mënta wax nañoo xam ni ñun famille El Hadj Mor Assou Ngom liggéey la ñu xam nañ ñu bàyyi ak seen alal ñu liggéey si xel mu dal si la seen i teraanga yi nekk si la ay doomu aadama yaakaar pour jot tamit seen i teraanga te ñu ngi siy def lu ñu mën si lu baax amul benn doomu dëkk bi taxaw fi ne waa Kër Mor Assou Ngom yi seetaan nañ dëkk bi te si si teraanga ji lañ koy jële di ko dimbalee dëkk bi di ko dimbalee doomu aadama yi kon nañ ñu bàyyi ak seen alal waaye nag duñ ko bàyyi mu sedd nañ ko topp ba fi nga xamante ne fa la ñu mën a yem yem fa bàyyiwuñ leen tey bàyyiwuñ leen ëllëg li ñu jëlal nañu ko delloo si yoon nag def liggéeyam parce que dañoo tooñ te tooñ bi ñu tooñ nii est-ce que bu fekkee mas na am yaraax gëj na fi bu fekkee mas na am yaraax gëj na fi lii daal mooy samay kàddu yi muy mujj di leen nuyu di leen ziar di rafet lu taxawaay bi ak liggéey bi ngeen di liggéey rafet na macha allah. jërëjëf jërëjëf Babacar lu ngeen tëjee rek li nga xamante ne waaw di leen di leen sant di leen gërëm surtout yéen seen taxawaay du c'est la première fois ay yoon ñëw ngeen di taxaw ci événement yi am ci dëkk bi yëpp mm-hmm. surtout yow Abdou Abou bi nga depuis bi nga nekkee Mak TV mm-hmm. ba si Actubuzz bi mm-hmm. yow yaa ngi ñëw di taxaw suñuy émission suñuy lépp pour di ko jàllale kon yow ñu ngi lay sant di la gërëm yaa ngi nga àndal si liggéey bi yëpp di leen baal àq jërëjëf